le président Macky Sall élection yi ci ngañay lu leer nañ waye su fekkee ni ñi ngi fi jog def ay accusations yo xamné c'est des accusations gratuites dara amu ci pour lënd lëndëmal xeli askan askan wi defe naa loolu amul solo war nañ ko moytu. puisque Moustapha Cissé Lo li tax ma mëna a wax ci mom moy dama ko xam li tax ma xam ko moy dañoo yag ànd avant président di ñëw ci pouvoir bi. man maa ko daan indi Paris muy def ay meeting ànd nañ fu ne ànd nañ Mantes-la-Jolie maa ko fa yóbbu te loolu Mamadou Talla mi nekk ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tey jii xam na ci dara ci wooteem sax laa ko indee ndax moom ma woo wax ma ko ma indi Moustapha Cissé Lo boobu moom xamantewul ak Moustapha Cissé Lo mu ñëw fa mitin bu am solo ñu ànd def dem lion dem Saint-Étienne loolu lépp ci ay moyen boppam la ko defoon la ko daan la ko la ko doon defee dem euh, Charonne fu ne ñu dem fa defe meeting xaalis daan développé développé bu bari daan ko financé ci parti bi boo parti bi amul dara kon tey boo tëbee di wax wax ju ñaaw joo xam ne tegul fenn ñun dañuy naqari ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci département Mbacké te li may wax nag maa ngi koy waxee ci turu mbooleem responsable politique yu nekk ci àll bi fii ci département Mbacké ndax dañoo lëkkaloo nekk wenn say taxaw di xeex pour parti bi tegu ci yoon kon boo bëggee bëgg boo ñëwee bëgg a chambler bi daf ñuy naqari loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg da ngay yem fi nga war a yem. yow président Cissé li mu wax benn question la posé boo xam ne journaliste yi posé woon nañ ko ndax dañu wax ni tabax nga kër goo xam ni 700 millions la loolu lañ laaj ne xaalis boobu fan la jóge cest à loolu moom du lu Cissé njëkk a wax journaliste yi ñoo ko waxoon mais biñ ko waxee ana lan moo tax yow. defoo déclaration xas leen wala nga saag wala nga tuumaal leen bi si si la tëbee wax rek yow itam nga nga profito ci occasion bobu pour wax lo xamni ni ci deug kon lolu journaliste yi laajoon ben question la bo xamni ni yow war nga ci tontu lo rek la man gemna ni kep ko am responsabilité ci nguur gi ñu nek ni wala kep ko xamni ni ji jege nga Macky Sall ñu gis la alal lolu war nga wax sénégalais yi fan nga jël alal jooju. loolu man principe la boo xam ne dama koo gëm te loolu la président Macky Sall gëm président Macky Sall dafa waxoon ne du ma kenn te loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci moom ndax loolu lañ xam ci moom wala boog loolu lañ yaakaar ci moom. ah loolu laay wax loolu jugul président Macky Sall parce que li tax jugul président Macky Sall mooy bu ñu sey jëm dañoo soxla teg dañoo soxla ak dal waaye un responsa un haut responsable comme euh, Farba Ngom nga xam ne dafa jege président. kooku vraiment waroon na moom bu ñu ko doon saaga ka xas mu gëmm bañ a indi benn benn benn benn coow ci biir parti bi ndax loolu arrange président Macky Sall kon président dama lay wax ni na nga xam ñi nga xam ne ñoo la bëgg ànd ak yow démb di la liggéeyal te joxoo leen dara waaye déggoo seen làmmiñ ñooñu ñoo la bëgg ñi nga xam ne nag jox nga leen lépp ba pare ñu nekk fii di xiiroo ko xaayo ŋaayoo loolu arrangé wu la nanga taxaw régler loolu te yow yaa ko mën a régler sa bopp bu ci xaar kenn fitna baaxul te parti bi soxlawul fitna fi mu nekk nii. responsable yi nga xam ne ñoo nekk département Mbacké nanguwuma kenn ku leen laal loolu dama koy wax nag en toute légitimité en toute légitimité laa koy wax. war naa ko wax ndax APR ñëw ma ci kenn amu ci kenn ku ci def lu ma deful wala nga xam ci lu ma xamul kon loolu lu am solo lu jar a xam.